asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel ci seen chaîne bii di Nihma yi ñoo ngi leen di nuyu di leen dalal waaye di leen jagleel nag ak cant ak ngërëm ci topp gi nga xam ne yéen a koy topp seen émission bii di lu ci yàlla ji wax. tey nag suñu juróom-benneelu émission bii dañ leen di dëgtal ay kàddu ngeen déglu ko su ko defee nag ñu dal di ñëw ci laaj yi ak tontu yi ci ndimbalu borom bi subhaanahu wa taala parce que damaa dégg benn nit may wax ak moom benn ma ma yonent bi moo nu gën ndey ak baay yow la gën ndey ak <laughs> man sama ndey ak sama baay ñoo gën ñoo gën ndey ak bàyyi yonent bi ah. parce que man sama ndey ak sama baay ci lislaam lañ judd alhamdulilah Cheikh Mbacke Sakho ñoo ngi lay nuyu di amaat mbégte di la dalal ci émission bii di lu ci yàlla ji wax ginnaaw bu ñu bokkee ñun ñëpp déglu élément bi nga xam ne moom lañ indi tey laaju juróom émission wu tey bi benn kese la jëmm ji nga xam ne moom lañ teg léegi ak lii mu wax nii li ñu bëggoon a xam mooy ndax ci biir téere bi yàlla di alquranul karim dafa am fu ci yàlla jàngalee ne way juri yonent yi ñoo gën suñuy way jur ñun wala sax fu mu jàngalee ne yonent bii nga xam ne mooy muhammad alayhi salaam way juram moo gën suñuy way ñun waaw kay euh, Ibrahim maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne Euh, dañuy topp émission bu am solo bii di leen baalu te di leen baalu àq te ñaan yàlla mu boole ñu jéggal macha allah kontaan nañ lu baax a baax di rafetlu bu baax euh, émission bi di rafetlu bu baax it euh, élément bii nga xam ne moom nga indi tey mu doon sujet boo xam ne yàlla dogal na fan yi gis nañ mu jur ay réaction yu bare bari ci réew mi bari ci ay coow yoo xam ne jur na ko te kam laaj yi nga xam ne moom nga laaj rek mooy ndax yonent yi seeni waajur ñoo gën suñuy waajur waa ndax yonent bi ay waajuram ñoo gën ñun suñuy waajur ndax kii li mu wax dane moom ay waajuri yonent bi gënuñ ay waajuram ndax moom ay waajuram maanaam ci islaam lañu juddu te yenent bi ay waajuram nekkuñ woon ci islaam waaye li nga xam ne moom lañ ci bëgg a wax rek nga xam ne kem li nga xam ne moo dëppook turu émission bi ci boppam di lu ci yàlla ji wax li ñuy def mooy dem xool lan la yàlla wax ci mbir mii ñun nag li ñuy njëkk a wax mooy nit ñi nañu xam benn mbir diine li ko tax a jóg mooy niteen nit ñi li ko tax a jóg mooy wan nit ki aw yoon wi xam ne ci lay jaar ba mën a baax wan nit ki aw yoon woo xam ne ci lay jaar ba mën a baax te nit ku ci ne li nga jëf yow lay jëriñ nekkul ne sa njaboot lay jëriñ nekkul ne say waajur lay jëriñ nit ku mën a doon ku ne li ngay jëf yow lay jëriñ te loolu dafa mat a xam kon nit ki ñu jàpp ne moom su baaxee ay waajuram kon ñoo war a gën waajuru ñeneen ñi walla su baaxee ay doomam ñoo war a gën doomu ñeneen ñi loolu moom ku yeewu ci diine yàlla sa gëm-gëm mënul mel noona te lu mel noon it doo ko mës a gëm ndax yàlla wan nañu ay misaal ci ñaari wàll yépp ku mel ni yonent yàlla Ibrahim nga xam ne yàlla sax maam doxalin ba nga xam ne la Ibrahim yoroon moom la doon topploo yonent bi ni mu ko wax na ko wat tabaa millata Ibrahima xanifan nga xam ne doxalinu Ibrahim ma nga xam ne dafa wéetaloon yàlla ci lépp yàlla ci boppam sax loolu la doon topploo yonent bi Ibrahim moom ku dem ci histoire ci li nga xam ne moom la ñu yàlla nettali ci diggante moom ak waajuram loolu dana doon misaal mu leer naññi boo xam ne dina mën a tontu laaj bi nga xam ne moom nga njëkk a laaj te su boobaa sax nag dana tontu beneen laaj ba ca topp muy ndax way juru yonent yi ñoo gën ñun suñuy way jur ndax ku dem ci alxuraan di nga fekk Ibrahim moom ci boppam suñ borom di ñu nettali wax joo xam ne da ko waxoon baayam ci boppam muy lan wax baayam ne ko man daal gis naa ne yow ak say nit ci réer gu leer nekk yàlla wax ne wa id xaala ibrahimu li abihi azara atattaxisu asnaaman alihatan inni ya araaka wa xawmaka fii dalaalin mubin li ñu suñ borom nettali ne ak ba ibrahim waxee baayam ne baayam bi tudd azar ne ndax dangay ngay jàppee ab xërëm yàlla ne ko man daal li ma gis mooy yow ak saw nit ci réer gu leer ngeen ne yow ak saw nit ci réer gu leer ngeen ne te ibrahima moomu digoon na baayam ne ko dina ko jéggalul yàlla te ginnaaw gi suñ borom da koo xamal ne ko sa baaykat noonu ku yàlla la ba mu ko xamalee loolu Ibrahima dig googu nga xam ne moom la digoon yàlla nga nga xam ne moom la digoon baayam na dana ko jéggalul yàlla ca booba la ca jub soo demee ci taw ba yàlla sax lu jiitu muy wax ci Ibrahim dafa wax ci yonent bi ak ñi nga xam ne ay woy gëm lañu ne kat warut ci ñoom ñuy jéggalul bokkaalekat yi bokkaalekat yi nag yaakaar naa wax nañ ko ay yoon mooy ñu nekk ci xeetu tariixa yeeg xaaj yi nekk fii di tuddoo islaam ay lu mel ni ay ahlu sunna wal jamaa ak yeneen xaaj yooyu yëpp ak li ñuy wax tariixa ak yooyu yëpp nga xam ne dañoo xaaj seen diine te yàlla xam le ne ñi xaaj seen diina ay bokkaalekat lañ loolu wax nañ ko ay yooni yooni yoon ku dem ci sootu ruum muy suura 30 nga liir aaya 31 32 yaa koy gisal sa bopp ci li yàlla wax ne munibiina ilayhi wattaquuhu wa aqimu salaata wala takunu min al mushrikin min alladina farraxu diinahum wa kaanu chiaan kullu xisbin bi ma ladayhim farixuun nga xam ne yàlla ci boppam moo ñuy xamal ne bokkaalekat yi mooy ñi nga xam ne dañoo xaaj seen diine def ko ay xaaj xaaj bu ci ne di ndamoo la mu yor mooy comme li nga xam ne moo fi nekk xaaj bi di jàpp ne ñoom ñoo yor li gën ñee di jàpp loolu ñee di jàpp loolu ñoñu suñu borom tuddé leen ay bokal kat yàlla mom mu tere won yonent bi nga xam da ko xibaaron ak ñëggam na ñom kat warut ci ñom ñuy jéggalul bokal kat yi li yàlla wax lin nabii wal ladhina amanu آمنوا yastaghfiru lil mushrikeena ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم yàlla dafa wax ne maanaam warut ci ki mu xibaar mooy comme ni ñuy wax ki mu soloo ak ñi nga xam ne dañoo gëm ñuy jéggalul bokkaalekat yi donte dañoo nekk seeni jegeñaale ginnaaw bi mu leeree ci ñoom ne ñooñukat waa jaxim lañ xam ne bokkaalekat yi waa safara lañ safara lañu jëm kon warut ci ku gëm mu leen di jéggalul yàlla loolu nja loolu njàngalam yàlla la lu leer la ginnaaw gi yàlla jàll ci ibrahim ne wa ma kaana istigfaaru illa an mawhidatin waadaha iyahu fa lamma tabayyana lahu annahu lahu annahu aduwun lillahi tabarraa minhu inna ibrahima la awwaahun halim ibrahim it ba mu diggee waajuram góor bi nga xam ne moom la waxoon ne ko li ma gis mooy yow ak say nit ci réer gu leer ngeen nekk bi ko diggee ne dina ko jéggalul yàlla te ginnaaw gi suñu borom xamal ko ne ko kat yow mii kat sa baay jii noonub yàlla la mu jug ci loola kon yaakaar naa ne nit su fekkee dangay laaj ne ndax yonent yi seeni waajur ñoo gën suñuy waajur yaakaar naa ne kat war na koo doy sëkk ab tontu lii kat war na koo doy sëkk ab tontu Ibrahima kat ak dayo bi nga xam ne am na ko ci ni nga xam ne suñ borom ci boppam moo ñu xamal ne da ko jàppe woon ab xarit wattaxada allahu ibrahima xalila te suñ borom nett lu ñu lii ci waajuram kon loolu doon na sëkk ab tontu ngir nit ñi mën a xam ne waajuri yonent yi nekkul na ñoom dañoo doon yonent rek seeni waajur kon ñoo gën ñun suñuy waajur déedéet kenn ku ci ne la koy tax a gën moo koy def suñuy waajur la leen tax a gën la leen tax a baax ñoo koy jëf ñun lañuy taxa baax ñoo koy jëf kenn ku ci ne li nga jëf moom la la sa borom di fay kon nag kenn ku ci ne it lii su ko leeree war na bàyyi xel yi nga xam ne sax soo ñëwee fii ci dëkk bi moom nga fiy fekk nga dégg ñu naan la ah ñun kat suñu maam yi ñoom kat wax dëgg yàlla dañoo baax ñoom kat wax dëgg yàlla dañoo baaxoon kon lu mën a xew seen waajur yi war nañ leen a bàyyi xel ndax diw moom it wax dëgg yàlla waajuram ku baax la woon waajuram ku baax la woon dem sax ba koy roogalaatal ci seeni doom di jàpp ne ñoom sax seeni doom ñoo gën ñun suñuy doom seeni waajur ñoo gën ñun suñuy waajur nga dem ba sax di gis ñoo xam ne ci seen biir dangay gis ñu toog naan waaw ñun doomu soxna yi yooyu yëpp ay xeetu nax la rek loolu wérut teguwut fenn kenn ku ci ne la day tax a gën yaa koy jëf kenn ku ci la lay tax a baax yaa koy jëf nit ki ñu ne yow ku baax nga tegtale wut na say waajur dañoo gën suñuy waajur nit ki nit ki ñu ne yow ku baax nga tegtale na yow say doom dañoo gën suñuy doom wala dañoo gën ñun loolu tegtale wut loola te ku dem ci alquran yàlla nettali na ko ci lu mel ni ma histoire yonentu yàlla nuux ci diggante moom ak doom ja nga xam lim ko wax ne ko innahu laysa min ahlika xamal ko ne ko kii kat bokkul ci yow te moo doomam la li waral loolu te koo xamal ne ko kii kat ay jëfam sellut kon dafa am loo xam ne dafa mat a bàyyi xel am loo xam ne dafa mat a xam am na ci gëm-gëm yoo xam ne li koy jur rek mooy dañ koy gëmloo nit ñi ngir ginnaaw gi mën caa sukkandiku di ko roogalaatal ci seeni nitu bopp waaye laaj bii nga laaj ndax waaye juru yonent yi ñoo gën suñuy waajur histoire Ibrahim bii ak waajuramu góor doy na sëkk ci leeral loola su dee nag dañoo ñëw ci yonent bi ndax ay waajuram ñoo gën ñun suñuy waajur loolu it ba tey nekkul lu jafe ndax li may wax ne wax ji li koy guddal ak li koy soril moo ñàkk dellu ci téereb yàlla waaye suñ dellu woon ci téereb yàlla rekk li war a leer ci ñun day leer ci ñun ndax yàlla ay waxam leer na nàññ te faramfàcce na ko it ba mu mat sëkk lu waaye soxla ci mbir loo xam ne ci diine la bokk soo ci demee lam la ca war a wax wax na la ko ci ab téeréem su fekkee ne yàlla dogal na nga doyloo ab téeréem ndax ku dem ci yonent bi ñu bëgg a xam lu aju ci ay waajuram suñ demee ci alxuraan li yàlla wax ne huwa allazi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min xablu la fi dalalin mubin loolu doy na sëkk yàlla moo wax yàlla moo wax ne moom kat moom mooy ki nga xam ne moo yebal ci ñoo xam ne musuñoo jot téere ndaw loo xam ne ci ñoom la bokk ndaw loo xam ne ci ñoom la bokk kon yonent bi ca ñam bokk yàlla moo ñu xamal ne kat ñooñu moom ci lu jiitu ci réer gu leer lañu nekkoon waaye léegi ñam bokk suñ ko waxee ay waajuram ñu ngi ca ay maamam ñu ngi ca ñépp a ngi ca suñ borom mu ne ci lu jiitu mi yebal ndaw li ci réer gu leer la nekkoon kon loolu te moom ñuy wax li ñuy wax ne lu jiitu suñ borom di ko yebal fekk na ay waajuram bàyyi koo fi kon ay waajuram ci lan lañ nekkoon kon kon kay ci réer gu leer la nekkoon léegi loolu suñ ci sikkandikoo ndax li kii wax ci plateau bi kon dinañ ko mën a weddi li wax ne moom ay waajuru yonent bi gënuñ ay waajuram ndax moom ay waajuram maanaam ci lislaam lañu juddu te yonenti mom ay wajuram nekkul won ci l'islam ndax ko lolu nit warna meuna taxaw diko weddi ak su koy weddi fan la koy tek kon ngeen gis na mbir yaangi ni ndax yonenti bi mom ci bopom li yalla wax ne lu jitu mi xana mom lu jitu mi koy yebal famu bok ci rir gu leer lañu nekkon famu bok ci rir gu leer lañu nekkon moom yonent bi moom ci boppam yàlla xamal ñu ci biir alxuraan ci li ñuy wax suuratu duha ne ko lan wa wajadaka daallan fahada dañu laa fekkoon nga réer ñu gindi la ndax ca nekkoon ci lu jiitu ñu koy yónni ci réer gu leer la ñu moom ci boppam yàlla firndeel ko ci moom ne dañu laa fekkoon nga réer ñu gindi la waaye xam nga wax yii nii réew mi mel nii soo koy wax nga xam ne ñoom yonent bi dañ leen cee njàmbaasalal njàmbaasalal njàmbaas ba nga xam ne sër bi kenn xamut nu mu toll nga xam ne ñoom yenent bi soo xoolee cër bañ ko jox yàlla mi leen bind sax joxuñ ko ko wax yi soo ko ci waxee day bett ci ñoom ndax day bees ci ñoom te fekk na kat wax yi waxu yàlla de waaye li muy wax li muy gën a firndeel rek mooy ñàkk yi ñàkk tënku ci téereb yàlla suñ tënku woon ci téereb yàlla dinañ xam lan la yàlla waxal boppam ci yenent bi كم لي ني فارال دي wax ne yàlla li muy wax yàlla yenent bi muy wax ci alquran soo demee bàyyi xel alquran xool li yàlla di wax ci yenent bi léegi nga déglu nit ñi li ñi wax ñom ci yenent ba wax yow sa bop da ngay xam ne yenent bi ñi wax ak yenent bi yàlla di wax du ben yàlla mom li wax ci yenent bi wax ju leer la wax ju simple lu ku ne mën xamal bopam ñi nak yenent bi lu ne lañ koy waxal waaye su fekkoon ne dellu nañ ci téere bi yàlla am na ci loo xam ne ñoom ñoo koy xamal seen bopp ni yàlla waxee ne yonent bi ci boppam da koo fekkoon mu réer mu gindi ko yàlla am na neneen nu mu koy xamlee su ko xam ne ku dem ci sootu shura li muy wax ne wa kadalika awxaynaa ilayka ruuxam min amrina maa kunta tadri mal kitaabu wala al imaanu walakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min ibaadina wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqimin suñ borom moom mu wax yonent bi na ko ca naka noonu lañu wax yow mu jëm ci yow ci suñu ndigal ruux loo ak ruux mi muy jooju ci suñu ndigal loo xam ne nga xam ne maam nga xam ne loolu ba mu koy wax yu muy jëm ci moom moom yërant bi xamul woon lii téere bi xamul woon lii ak ngëm xam nga nit koo xam ne xamul lii ak ngëm xam nga kooku mënee su koo ku gëm xamul lii ak ngëm ku xamul lii ak ngëm loolu mooy ak réer dëgg dëgg réer mooy loolu te kem li yàlla wax fële ne maam moom ci ñam bokk ci luy jiitu ci réer gu leer la ñu nekkoon te moom ci boppam yàlla xamal ñu ne moom ci boppam ci réer gu leer moom ci bopp suñu borom xamal nañu moom da koo fekkoon mu réer mu gindi ko kon léegi nit ñëw di wax ci ay waajuram ay nit ñëw di ci wax te yàlla li mu wax mooy ñooñu ci réer gu leer lañu nekkoon ndax li ko waral mooy lu jiitu ab mu musu leen a dikkal comme ni ko yàlla waxee ci sootu na mooy li mu wax ne alif lam mim tanzilul kitab laa rayba fihi min rabbil alamin am yaquluuna aftaraahu bal huwa alxaqu min rabbika li tunzira xawman maa ataahum min nadirin min xablika nga xam yonent bi lu moom lu jiitu suñ borom di koy yebal ci aw nitam ñooñu ab xuppekat musu leen a dikkal loolu moo waral ñu doon ay ummi yiin ab xuppekat musu leen a dikkal nga xam ne mbir yi noonu la deme waaye nag comme li ñuy wax jamono bu ne fii dafa doon réew moo xam ne daanaka nit ñi duñ ay gëstukat lu ci ëpp ndax soo xoolee jamono bi bi kii waxee lii ñi nga xam ne génn nañ di ci réagir ñu ñuy tuddee ay ustaas ak ñu ñuy tuddee ay boromi xam-xam di wax loo xam ne di wut a weddi kii di dal ci kawam ak di ko xas te ñoom li kii wax suñ demee ci seeni téere loolu lañ fay fekk seeni téere boobu suñ fa demee sa fekk fa wax yu gën a garaaw li ñu naan la yonent bi ci boppam moom moo wax ne ay waajuram ñoo ngi safara loolu moo ngi seen téere seen bopp seen téere yi waa ahlu sunna wal jamaa seen téere yi nga xam ne ñoo indi seen xadis yooya su ngeen ca demee di ngeen ca fekk ñoom seen bopp ñu wax ne yonent bi ci boppam mo wax ne ay waajuram ñu ngi safara kon ñii ñëwoon fii naan dañuy weddi kii di wuta dal ci kawam suñ dellu woon ci seeni téere ñoom ñi nga xam ne la ñuy ay oustaz am na ci loo xam ne kon du mën a nekk wax ne Sénégal ñi ñuy tuddee ay kilifa ñi ñuy tuddee ay ni koy ay boromi xam-xam ay oustaz gis nga ñooñu musiba gu leen dal ëllëg rek am nañ ci wàll li yàlla di wax fële ci alquran inna ataana saadatana wa kubaraana fa addalluuna sabila di wax ne ña ñuy tuddee seeni sang ak seeni mag ñoom la ñuy ba ñu riiral leen ci yoonu yàlla gis nga loolu su loolu fii sax mooy misaal mi dëgg-dëgg nga xam ne nit ñi dangay ñëw di leen wax sa lii la yàlla wax ñu naan la déet suñ mag ñi nàngam te loolu la yéefar yi daan wax ne soo ne yàlla nàngam ñu ne suñ mag ñi nàngam ay nit ñoo xam ne ñoom yëguñ ne sax la ñuy tuddoo mi ahlu su wal jamaa suñ delloo ci seeni téere li kii wax la ñuy saxal ñoom ñooy taxaw di ko weddi ba tax ay nit ñoo xam ne daanaka soo xoolee maanaam ñoom comme ñu nekk ci comme ñi nga xam ne dañoo nekk ci internet bi rek di wax nga gis ne maanaam dañoo nekk ci internet bi nii rek di wax ay wax ci mbir mi taxaw ci ñu génn di ci wax di saagaaka nangam mu leer na ñii li nga xamne mom la yàlla wàcce won ci yonent bi di alquran mu jotali won ñuko te yàlla toppaloo ko won yonent bi toppaloo ñu ko ñun ñi su fekkon na ñom xam nañ ca dara wala ñu yewu ca wala ñu koy jéem a lu mu néew néew amna doxalin yo xamne duñ ko mëna am bay génn naan dañuy wax ci lo xamne dañ ko wax ci yonent bi xamne lolu jafe-jafe la nit ñi war dañu bàyyi xel yeen doxalin yi kon wax deug yàlla sujet bi yàlla wax yu yomb la ci wax yo xamne ku dem ci histoire yonent yàlla Ibrahim lolu doyna seuk ab tontu loolu dooy na sëkk ab tontu kenn ku ci ne li lay tax a baax yaa koy def ndax nit ñi su xeet yooyu la daan jàngal naan wax naan maam lu yàlla bind nit a ci gën te wax nit ñëpp yonent bi ci gën te yooyu yooyu sax soo demee ci alxuraan yàlla jàngalewu ko ndax yàlla li muy wax ci nit ñi waxul ne yàlla yàlla waxu ne lim bind nit ñee ci gën waxu ko amul fenn fu mu ko wax yàlla dafa wax ne wala xadd karrab naa bani aadama وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يعني دنا نيت غنينا لي ميخما نيت ني دي دومو ادمي تي لو باري تي لم بيند واي واخول ن لم بيند ييب نيت تي ген تي لول تامي نيت ني داني نيوا نان واو يرمت بي يالا بيند مو تي ген ولو يالا بيند موتاخ با تاي امول فين فوكو يالا واخ دي te mbir yu amee noonu solo yàllaa ko war a saxal ci diine nag gaa yi loolu yàllaa ko war a saxal waaye nit ñi dañuy saxal yoo xam ne soo leen laajee lii nga wax fu ko yàlla wax duñ la ko mës a wax te teewul dañ koy saxal te li ko saxal mooy yii fi xewoon bu njëkk ba ay mbiru gàmmook yu baree bari yenn bind yi nga xam ne moom la nit ñi bind ak ya nga xam ne lañ bindoon bu yàgg ba nga xam ne nit ñi moom lañuy ñuy waat moom lañuy wax nit ñi nit dem ba gëm loolu te loolu amul fenn fu yàlla jàngale ndax loolu dafay indiwul diine yàlla loolu indiwu fi ndawul yàlla li ndawul yàlla li ko ñoroon mooy jottali message ub yàlla mooy li ko yàlla wax wa maa ala rasuli illa al ndaw li dara waru ko lu dul jottali gu leer gën lante ga nga xam ne dañ koy gën nga xam ne gënante ga nga xam ne dañ koy gënante ñoom ci biir ndaw ya ak ci biir ña nga xam ne dañ leen xibaar moo ñu ñuy tuddee ña ñu solo loolu yàlla wax na ko waaye tuddul ay tur comme ñu naan diw moo gën diw wala diw moo gën diw comme li wax fee lu mel ni wala xad faddalnaa baada nabiina ala baadin wa aataynaa a zabura ak lu mel ni tilka rusulu faddalnaa baadahum ala baadin minhum nga xam ne yii yàlla ci boppam moo koy waxal boppam waaye yàlla ñëwul di wax naan diw moo gën diw diw ay waajuram moo gën seeni waajur diw ay doomam ñoo gën seeni doom comme ni nga xam ne noonu lañ koy waxee déedéet yàlla daal lu muy wax lu leer da koy wax diw mii ak diw mii ak diw maa leen tànn ak ñun diw maa leen tànn diw mii maa ko tànn yàlla moom yooyu lay wax waaye ay waajuru diw ñoo gën seeni waajur ay doomu diw ñoo gën seeni doom loolu moom du njàngaleem yàlla kon daal li am solo mooy ñu tënku ci waxu yàlla tënku ci njàngalem yàlla suñ ko defee rek lépp oyof suñ ko defee rek lépp leer te su boobaa nit ñi li leen fi indi ci kaw suuf muy jëm ci seen mission ci liggéeyal yàlla ci kaw suuf mu doon loo xam ne luy jëriñ doomu aadama yépp la kon su boobaa dinañ ci mën a su boobaa dinañ ci mën a focaliser wu dinañ ci mën a doxee ni nga xam ne nañ ci war a doxee waaye nit ñi nañu bàyyi xel légèreté bi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy wax ci dëkk bii moom légèreté boobu ñu àndal lu xew ñu génn ci wax ci ay waxu wax ay wax yoo xam ne ci émotion képp lañ koy teg teguñ ko ci daray xam-xam teguñ ko ci waxu yàlla te du daraay diine di ci wax lu ne nag gis naa sax koo xam ne moom daanaka moom li muy def sax am na dëkk bu mu doon dañ koy jàpp tëj naan diw wax jii mu wax ku ko rey teg naa ci nàngam te yooyu yëpp nekk ay musiba yoo xam ne daanaka kenn xamul lu koy waral waaye li may wax rek day wane niveau bi fi nit ñi toll. fi nit ñi toll dañuy bëgg a wane ne gëm nañ bëgg a wane ne ñoom yonent bi ñi fii la leen toll wala faa la leen toll waaye bañ wax yonent bi fii la leen toll faa la leen toll ñoom waruñu woon lijjanti fa leen yàlla toll ba pare suñ lijjanti woon fi leen yàlla toll su boobaa dinañ mën a xam lan la leen yàlla wax ak lu leen waxut ndax yonent bi moom waxu leen lu dul li borom bi wax tënku wutoon ci lu dul li ko borom bi tënkuloo di ab téeréem dara ñoru ko woon lu dul mission bu yàlla bi ko yàlla dénk ay nit ñëw di wax naan dañ koo bëgg di waaye dañ koo bëgg naan teg nañ ci lii ak teg nañ ci laa ci mbir moo xam ne moom ñoom seen bopp téere ya ñuy tuddoo suñ demee fekk fa lu gën a garaaw loola ñu koy wax sax ci yonent bi waxuma lii nii kii wax de déedéet wax yu bona bona bona bona bona bona bon suñ demee fekk ko ci seen téere yooyu ñu koy wax ci yonent lañ waroon a gëstu suñ ko gëstu woon am na loo xam ne dana leen mën a leer dinañ xam ne diine yàlla bu leen ci kenn nax waxu yàllaa koy jàngale ñoom nag la gëm ay waxu nit a koy jàngale yu ñuy moomale a bi te suñ ca demee danañ fa fekk wax yu bon yu ñaaw yu ñuy wax ci yonent subaa danañ xam ne ñoom la gëm ca boppam da leen a leerut la ñoom la ñu gëm ca boppam dañ koo xamut waaye suñ ko xamoon am na ci loo xam ne jug nañ ci bu yàgg-yàgg kon daal wax dëgg yàlla macha allah ñu ngi baalaax bu baax di rafetlu bu baax lépp macha allah di kontaan bu baax nag ci sujet yi sujet la yoo xam ne su xasee jàll ba nit ñi bàyyi ci xel dem vérifier aaya yi nga xam ne moom lañ fi tudd suñ borom mën na dogal ñu gisaat yeneen aaya sax yuy gën a dëgëral wax jooju dina leen gën dimbale ba nga xam ne ñoom am na ci détail yoo xam ne dootu leen tàddal kon daal macha allah sant yàlla. ñoo ngi baalu ñëpp te di leen baalaax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum alhamdulilah macha allah Cheikh Mbacké Sakho ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci tontu yi nga xam ne non seulement détaillé wu na bu baax waaye tamit leer na naññ lii nag li muy gën di firndeel rek mooy ki nga xam ne day sukkandiku ci kàddug yàlla di wax ak ki nga xam ne bakkan lay waxee wala njorto wala lu mu fi fekk rek ci dëgg-dëgg duñu benn te lii liñ ciy gën a jàngee mooy bépp wax boo xam ne nit wax na ko jëmale ko ci diine képp koo xam ne yaa ngi réagir di ci tontu li gën d'abord mooy nga dem xooli ki wax loolu fan la ko teg ndax kat bëri na loo xam ne ay ŋàññ la ay wax yu doy waar la ñu askanale ko diine te ñi koy wax téere yiñ wax ne ñoom lañuy ñuy topp ginnaaw téere bi yàlla téere yooyu ñoo ko indi waaye téere bi yàlla moom doo fa dem mukk ba fekk fa loo xam ne ku ko dégg jàpp sa gémmiñ amul fenn kon nag jot na sëkk nit ñi takkuwaat delluwaat ci téere bi yàlla tënku ci kàddug yàlla sa topp yàlla comme ni ko yàlla digle ndax kat yàlla diine ji nga xam ne moom la wàccee jaarale ko ci muhammad alayhi salaam mu jottali ko bépp mbindeef boo xam ne aji gëm nga diine jooju ju jàppandi la ju noppale la ju leer la waaye ju jub la képp ku fi bàyyi téere boobu nag topp yeneen i téere di nga am ay jafe-jafe am ay tolof-tolof am ay gàllankoor te topp ay wax yu baree bare bari yoo xam ne képp ku jëfandikoo xelam di nga xam ne lii jógewut ci yàlla kon nag mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp bi nga xam ne yéen a ngi koy topp saa ne seen émission bii di lu ci yàlla ji wax tey nag lii lañ leen indiloon ci seen juróom-benneelu émission di len jox dig daje ci benen émission ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala assalamu alaykum